الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala mi ñu wax ci alquranul karim ni moom yàlla moo waral ci nit ñi lii di aj màkka ci ku ko man benn yoon ci sa dund waaye képp koo xam ni weddi na lool ñàkk jëfe boobulee ndigal na xam ni yàlla rek woomal la ci mbindaa foofu ñu ngi seede ne buur boobu de amul kenn ko yoo jaam ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te yellul ñu koy bokkaale ak kenn di seede ni suñu sang Muhammad alayhi salaatu wa salaam moom mi wax ci xadis ni lii di al umra diggante umra ak moroom nee na ay jéggal bàkkaar ma nga ca lii di xaj nag aj bu ñu nangu lenn du payam lu dul aljanna yal na yàlla julli de salmal ci moom yàlla fay ñu ko moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam te musal leen mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ak topp ko yàlla mu ngi wax ci alxamu ni nañu ragal bis bi nga xamante ni doom wala wayjur du ci mënal doomam dara doom it du ci mënal wayjuram dara mu ni boobulee digle digle goo xam ne bu dëggu la bu ñu yàlla digli moo ñuy xaar ëllëg kon bu ñu àdduna si wor bu ñu waru tamit ci àdduna gi nga xamante ni luy jeex la mbokk yi lii di soobu ci ponk bii di ponk aj dafa bokk ci màndargay ragal yàlla ci jullit mu war na ci képp koo xamante ni yaa ngi waaj ngir dem aj ji nga xam lépp loo xamante ni moom nga ko war a defe ji xam-xam gu wér ndax benn ponk la ci ponk islam juróom ginnaaw bi alayhi salaatu wasalaam waxee ci xadis bii ni buniyal islaamu ala xamsin islam de fondement am juróom la ñu ngi ko tabax ci juróomi ponk yi mu bokk ci juróom yooyu lii di xajjul bayti aji ca kaaba gi nga xamante ni moo nekk ca Makka mbokk yi ñu waxoon suñu xutba bi weesu ni tey bi isnillahi taala dinañu leeral ci juróom benni façon yi nga xamante ni mooy li jullit bi war a tànn ni aj gii laa war a tànn pour aj ko ba ci njëkk mooy ci anwaawul xaj yi atamattu ñu waxoon ni mooy aj gi nga dul lëkkale ak umra bi ak it qiiraan muy aj gi ngay lëkkale ak umra bi ak ifraat muy aju kese bu àndul ak umra muy ñetti façon yi nga xamante ni mooy anwaawul xaj benn bu ci nekk nag dafa am ay xutuwaatam xutuwa mooy ay jéego boo jugee ci lii lan nga war a def boo jugee ci bii lan nga war a def ki nga xamante ni moo jël tamattu moom bu duggee ci ashhurul xaj yi muy weer yi nga xamante ni ci ngay sooboo ci aj ñu leeraloon ko ci xutba bi weesu moom bu demee ba ci miiqa ba fa nga xamante ni foofu la ñuy xaramalee ngir tànn yéene aj ji nga war a aj la muy def mooy day wat la ma war a wat ci ay karawam lelli ay weyam xeeñoo parfum sooga nag solu li nga xamante ni mooy armala bu dee góor la du sol lu ñu ñaw la muy woddoo la ak la muy taraxaayoo bu dee jigéen nag moom mën na sol lu ñu ñaw ginnaaw gi nga taxaw wax yéene gi nga xamante ni mooy yéene gi nga war a tànn aj gi nga war a tànn nga ni labbayka umratan mutamattian biha ila al hajj kii def tamattu lii lay def lii lay wax yéene ci aj bokkul ak yéene ci julli boo yéene ci julli moom da ngay fas sa xol waxtu bi julli mais bu dee aj nag da nga koy wax kon kii def tamattu lii lay wax labbayka umratan mutamattian biha ila al hajj julli ñaari rakka rakka bu nekk bi fatiha ak kafirun lay tari bi ci des fatiha ak ixlaas su ci noppee mu tàmbalee lii ñuy wax ak talbiya talbiya mooy labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa niamata laka wa nun la sharika lak kàddu yi lay yëkkati di ko wax durant ak ji kàddu yi dafa war a nekk loo xamante ni moom lay saxoo di ko wax wante moom lay tàmbalee wax miiqa bi ñu wax ne alayhi salaatu wasalaam moom ba mu ko tàmbalee wax mooy ba mu yéegee ci xasuwaa ca gëlëm bi ci la ko tàmbalee wax ci xilaaf bi am ci ñii ni boo xasee ba armal la su koy tàmbalee wax ñii ni déedéet mën ngaa dem ba ci wo ba ci oto ba soo koo tàmbalee wax bu dee góor day yëkkati baatam di ko wax ci kaw bu dee jigéen ak moom day wàccee baatam noonu lay àndee ci armalam googu ci jël tamattu dëgmal fee di kaaba ga ngir defi ji tawaaf bi ñuy wax tawaaful qudum buy def tawaaful qudum lii di mbagg nday jooram da koy wuñ bu dee jigéen nag moom moom colkaam lu jot lay nekk lu fattu lu yaatu kii def tamattu bu ñëwee ba ci kaaba ga dafay ñëw tàmbalee li ñuy wax tawaafam muy tawaaful qudum bi ci fi muy tàmbalee mooy ci xajarul aswad mu jàkkaarloog moom ni bismillah wallahu akbar bu ko neexee mu dolli ci ni allahuma imanan bika wa tasdiqan bi kitaabika wa wafaan bi ahdika wa ittibaan li sunnati nabiyika muhammad sallallahu alayhi wa sallam su waxee lii falaa xaraj su noppee fa lay tàmbalee di wàññi ay tuuram ya muy def su demee ba wër ba wër ba wër ba egsiwaat ci xajarul aswad bi loolu la ñuy wax ne am nga benn tuur wante diggante gi muy tawaaf lam fay def mooy ay ñaan lay def ñaan yi ma ngi koy tëjee ci bu ñëwee ba ci ruknul yamaani ruknul yamaani mooy fa ngay jóge jëm ca xajarul aswad diggante bi dox fi ngay jóge jëm ca xajarul aswad parti boobu moom mooy ruknul yamaani la fa alayhi salaatu wasalaam jàngale mooy ñaan boo mën a ñaan beeg si boobu na nga ko tëjee rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina adaba annaar bu ko defee nga am benn tuur ci bi nga egg ci xajarul aswad nga continuer ba ngay am say juróom ñaari tuur ginnaaw bi nga matalee say juróom ñaari tuur li ngay def muy sunna su bokk ci tawaaf bi muy sunna tawaaf bi mooy julli ñaari rakkaa rakkaa bu njëkk bi fatiha wa suratul kafirun ñaareel rakkaa bi fatiha wa suratul ixlaas ginnaaw bi sunnal nañ ba tey nga laal lii di xajarul aswad bu dee lu mën a nekk la te xam nañ ni loolu mënul nekk jamonoy xaj ndax ni muy xatee sunnal nañ ba tey nga jël lii di ndoxu zam-zam nga naan ca soog a dugg nag fee nga xamante ni mooy ca safa ngir defe ji assaa yu bayna safa wal marwa ba tey ci ki jël tamatto ñu nekk ci moom buy dem ci safa la muy def mooy day jàng aay bi borom bi subhanahu wa taala wax ni inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alay an yatawafa bihima ginnaaw gi bu mu waxee wax ji mu jàkkaarloo ak xibla bi ni allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti yoon la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama alahzaba wahdah ginnaaw ñaan gi nga taxaw nag ca safa ba tey jàkkaarloo xibla bi ñaan ñaan ñaan ñaan soo ko jóge safa dem marwa boo demee ba marwa it nii nga defoon ci safa noonu ngay def ca marwa wante bu ñuy wax dox diggante safa ak marwa mooy boo jógee safa jëm marwa am nga benn tuur boo jógeete marwa ñëw safa am nga ñaar jógewoo safa dem marwa am ñett nan nga koy defee ba juróom-ñaari mat juróom-ñaareel bi mu ngi tollee fi ngay génnee ca fee di marwa bu ko defee kii jël tamattu moom bu defee nii day daal di war laal ca karawam ngir mu jot li ñu taxliilul awwal maanaam génn na ci omra bi ndax la mu tànn mooy omra ak aj gundul lëkkale bu dee ni jigéen nag lu toll ni umma la ummu la moom lay dagg ci karawam day jël karawam baaraam bi boo ko jëlee mu nekk ñetti xaaj bu njëkk ba ca kaw loolu mooy tollu ummu la moom lay dagg ci karawam bu ko defee moom génn na ci armal di mu armaloon mu dëgmal di xaar juróom ñetteelu fan ba mu yow mu tarwiya ngir mu sóobuwaat beneen yoon ci beneen armal ngir dugg ci aj jëm lu lu lëkkale ak umra ak yom génn kii jël tamattu loolu lay def waaye kii jël xiiraan moom li ki def tamattu def loolu lay def ca miiqa ba mooy dafay watu lam war a wat laal gëttam armalu wante la muy wax ci yéenéen du bokk ak ka defoon tamattu la muy wax moom la muy wax mooy labbayka umratan wa hajjan yow yàlla wuyus naa la ci umra ak aj bu ñu lëkkale bu ko defee moom la muy def bu ñëwee ba ca kaaba ga ci tawaaf la koy defoon tamattu def moom lay def ci wër ga la ma waxoon it loolu lay wax waaye ci diggante safa ak marwa moom mi jël xiiraan day dugg def safa ak marwa bu defee safa ak marwa ka def tamattu ñu waxoon sànq ne dafay dagg ci karawam leen li karawam moom du ko def ndax moom ba tey dafay des ci armalam ki def xiiraan kii def ifraad it moom jéego yi ki def tamattu ki def xiraan def moom lay def lañuy la leen di wuutale moom mooy bu ñëwee ca miiqa ba la muy yéene mooy labbayka allahumma hajjan ndax moom aj dong la wax moom lay def kon boo xoolee kii def tamattu ak kii def xiiraan ak kii def ifraat la ñuy def ci miiqa ba ñoo ko bokk ba mu def yéene ba mooy aj ba ngay tànn bu ñëwee ca tawaaf bi ñoo bokk la ñuy def ci tawaaf bu dee safa ak marwa ñooy defandoo safa ak marwa wante la leen di wuutale ñoom ñett ñépp mooy ki def tamatto moom dafay dagg ci karawam ngir génn ci xarmal mais ki def xiiraan ak ki def ifraat ñoom dañuy def ci seen armal di xaar bis bi nga xamante ni mooy ay yawmu saabi bu ñëwee mbokki ci al yawmu thaamin muy juróom ñetteelu fan gi ci weeru tabaski bi loolu mooy yawmu thaamin ñoom ñëpp dañuy jóge fii di màkka dëgmal mun na mais xam ngeen ni ki def ifraat ak ki def qiraan moom ba tey mi ngi ci armalam ki ci génn nag mooy ki def tamatto kooku dafay yéene waat ci hôtel ba mu nekk sanguwaat set wat la mu war a wat armaluwaat ni labbayka allahumma hajjan ndax aja ko dese ñu jóge fii di makkatal mukarram dëkk mël fee di mun naa buñ fa demee ci mun naa tisbaar bu leen fa fekkee ñaari rakka lañ koy julli kon xasru la ñuy def dañuy wàññi waxtu bi dañuy wàññi julli gi waaye duñ ko boole tàkkusaan bu tàkkusaan jotee dañuy julli waat tàkkusaan waaye duñ ko wàññi duñ ko duñ ko ba tey dañ koy wàññi kon tisbaar ak tàkkusaan bu ci nekk ci waxtoom lañ koy julli waaye benn bu nekk ñaari rakka lañ koy julli lii di timis kenn du ko wàññi waaye bu gée jotee dañuy wàññi lii di julli gée gi def ko ñaari rakka kon ca mun naa ci yow mu saamin ba lii mooy la nga xamante ne loolu lañ fay def ñoom ñu ko bokk daje ñëpp nag ki def ifraad ak tamattu ak qiraat mu defee leen bis bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal muy yow mu arafa ci juróom ñetteelu juróom ñeenteelu fan bi muy neuvième jour bi ci yow mu arafa la ñu def ci mun na ci wàññi julli dañ koy def ca feedi arafa mooy tisbaar bi ak takkusaan nga leen di fekk ci arafa ñoom ñaar bu ci ne dañ koy wàññi ñaari rakka lañ koy julli waaye dañ koy boole dañuy liqaam julli ñaari rakkay tisbaar sëlmal jugaat liqaam julli ñaari rakkay takkusaan sëlmal foofu la leen timis di fekk waaye duñ ko fa jullee ñoom ñëpp ñoo bokk loolu fay def ginnaaw nag julli gi ñu fay boole ci yow mu arafa lañ fay def mooy ñaan yàlla ci bisu arafa di tudd yàlla ci yow mu arafa di jàng alquranul karim ñaan bi nga xamante ne alayhi salaatu wasalaam nee na xayru duaai duaau yow mu arafa ñaan yi gën ca la ngay def ji ca makka mooy ñaan yow mu arafa wa xayru ma qultu ana wannabiyuuna min qabli li gën ci la mun sa wax man ak yonent mi jiitu woon mooy lii muy bëgg a wax laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alayhi salatu wasalaam nee na loo mën a ñaan ci yow mu arafa ñaan ba ca gën mooy ñaan bi bu ko defee xujaaj yépp ci yow mu arafa ñoo bokk lii ñu fay defandoo ci timisu bisu yow mu arafa fa lay fekk ñëpp waaye kenn du fi jullee timis fañ koy julli jee mooy dañ koy jóge ñoom ñëpp dëkk mal fay ñuy wax musdalifa musdalifa mbokk yi timis bi nga julliwul woon ca arafa moom nga fay julli waaye ñetti rakka lay doon timis kenn du ko wàññi gée it musdalifa la leen di fekk waaye fa la ñuy jullee gée ñaari rakka lañ koy julli kon dañuy boole timis ji ak géegi foofu waaye géega la ñuy wàññi kenn du wàññi timis bi foofu te musdalifa fa la ñuy foree xeer yi ñuy sànni muy jamara ji jamara bi ngay sànni ci boo jógee ci musdalifa te muy tolloog fukkeelu fan bi juróom-ñaari xeer lay doon yu ñuy sànni ji ca aljamra al aqaba al kubra te léegi mënoo jaawale di dem di sànni ci jamra beneen budul al aqaba al kubra ndax yi ci des yëpp dañ koy tëj benn passerelle dong la ñuy bàyyi ngir boo ñëwee ca foofu di musdalifa ca mun na fa ngay sànnee sa say say say juróom-ñaari xeer wante xeer yi ngay for foofu ci musdalifa mu ngi tolloog ci soixante dix xeer soixante dix yoo xamante ne ñett yi moom ngay sànni ci bisu tabaski bi buñ ci noppee ci bisub tabaski bi muy bisub fukkeel bi lañ fay def ñoom ki jël tamattu ak ki def xiiraan ak ki jël ifraat ki def tamattu ak ki def xiiraan moom dafay xadi day tuur deret maanaam day rendi bu ca noppee mu watu sol ay yërey aadaam la koy dagan mooy laga lañ ko tere woon ci ba mu xarmalee woon ba mu des an nisaa ba mu des jigéen bu dee dafa àndoon ak soxnaam mën na gul ànd ak moom lu dul dafa jóge ci bis boobu di bisu tabaski bi def tawaaful ifaada mu bokk benn ponk ci ponk aj bi su ko defee ba noppi ci lay soog a mën a nag génn ci li nga xam ne mooy aj ji mu desee ko yi nga xamante ni mooy yow mul ayaamu tashriq mooy ñetti fan yi ñuy des ca mun na aqulu ma samitu wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin li kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di juddi selma ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam suñu ñaareel taxawaay ginnaaw bi ñu leeralee ñetti façon aj yi am muy tamattum ak xiiraan ak ifraat ak seen xutuwaat kii nga xamante ne moo def tamattum ak ki def xiiraan ñoom dañuy rendi waaye ki def ifraat moom du rendi ginnaaw gi ñoom ñëpp la leen di dese bu ñu defee tawaaful ifaada ci bisu fukkeel fan bu fekkente ni mën a nekk la su mënul nekk ci bisu fukkeel ba mën nañ koo def bu ñu jógee mun a delluwaat màkk li alayhi salaatu wasalaam jàngale ci sànni jamara yooyu muy ñetti fan yi ñuy toog ca mun na ñetti fan la waaye képp koo xam ne def nga fa ñaari fan falaa isma alayhi wa man taaxara ku ci def ñetti fan fala isma alayhi liman ittaqa ñetti fan yi benn bis bu ci nekk da ngay jël lu tolloog vingt et un xeer moom ngay dem ngir sànni ci sa jamra jamra bu njëkk bi mooy jamra ba nga sànni woon ci bisu tabaski bi foofu ngay sànni wat say juróom-ñaari xeer waaye sànni xeer nekkul da ngay jël juróom-ñaar yëpp sànni ko alayhi salaatu wasalaam na nga ko jàngale woon mooy da ngay jël benn par benn di sànni bu muy sànni lam ci wax mooy allahu akbar sànni da koy sànni na nga fexe ba mu sànni ba mu dugg ci mbalka bi maanaam bu ko jege ba mel ni lu koy yoor waaye bu sori di ko koy sànni muy dal kenn bu sànnee ci jamra al aqaba al kubra moom alayhi salaatu wasalaam daf daan wañ daf daan puus ba mooy lii di jamra bi dëgmal xibla bi taxaw fa ñaan bu noppee mu dem ci al jamra al wusta mooy bu digg doom bi sànni fa juróom ñaari benn bu ci nekk nam defoon ca fee ca aqaba al kubra noonu lay defaat allahu akbar jëlaat benn allahu akbar jëlaat beneen allahu akbar ba juróom ñaari mat mu puusaat jàkkaarlu xibla saa yi boo téenee di nga gis pancarte bu ñuy def al xibla mooy ne bul jàkkaarloo lii di jamra bi di ñaan foofu seytaan moo fa nekk nga taxaw fële ci xibla bi taxawaat ñaan ñaan ñaan comme ni ko alayhi salaatu wasalaam defee woon boo ñëwee ba ci nag as-suxra bu ndaw bi boo sànnee say juróom-ñaar ba mu mat foofu alayhi salaatu wasalaam daaw fa taxaw ñaan bu paree day génn dem loolu ngay def ci bis bu njëkk loolu ngay def ci ñaareel fan bi doy na ci ñaareel fan bi waaye ku ko toog ba ci def ko ñetteel jour bi loolu mooy li gën kon alayhi salaatu wasalaam mbokk yi bi muy jàngale aj ànd ak saxaaba yi aj ba noppi wax ji leen wax mu leen xusu anni manasikakum jël leen ci man nii ngeen di ajee mbokk yi li gën a bëri liggéey nag ci bisu ci aj bi mooy diggante arafa muzdalifa ak bisu tabaski bi ak la ci am ca mbooloo yëpp mu ma ta xale alayhi salatu salaam daa wax naan as-sakina as-sakina maanaam def leen ndànk def leen ndànk ndax mbooloo mi bari na borom boo xamante ni kenn ku ci nekk war ngaa sóoraale ni dama fee ñëw ngir sàkku tuyaaba ñëw ma ngir lor wala may lor kenn kon alayhi salatu wasalaam loolu la doon digle ci ni ñëpp nañu def ndànk nañ def ndànk tey muñalante mbokk yi suñu ujaaj yi nekk ci wàccaay yal na yàlla defal leen kàttan ba kenn ku ci nekk ponk bi nga xam ne ponk bu rëy la ci islam ponk islam metti ba ñu faral ko benn yoon sa dund yal na yàlla defal leen kàttan ak yombal ba ñu matal seen ponk yëpp ñu war a def ci takbir yàlla buñ fa jógee di dese benn bàkkaar yàlla yàlla defal leen xajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zanban maghfuran wa amalan salihan mutaqabbala ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين قوم إلى الصلاة ورحمة الله Thank you. Bună ziua!
Thank you.
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد